waaw salaam salaam salaam sama waa kër salaam sama seconde famille eh, maa ngi nuyu ku nekk si turam ak santam bon di rafetlu aussi yéen ñëpp seen intervention et puis di nangu seen jàll et puis di leen ne aussi maa ngi leen di jaale suñu rakk jooju mi nga xam ne mooy Binta Camara nga xam ne tey Tamba ñëpp ñoo ñàkk eh, aduna képp moo ñàkk rawatina ak ñun doomu Tambacounda euh, ñoo ngi leen koy jaale yàlla na suuf sedd ci koom ci barki weeru koor bi euh, yàlla na yóbbaale lépp li nga xam ne moom mooy lu gën ci moom yàlla na ko yàlla xaare ajana euh, yàlla na yàlla na yàlla def yéene bi mu amoon pour jàppale ay waajuram yàlla matalil ko ko te gëm naa ni am nañ yaakaar ci moom parce déjà boo xoolee wax dëgg yàlla kii sa bàyyi toog gërëm nee man sama dom yep kii moo ci gën ah, kon lulu yaakaar na sant yàlla la DG Demba ci boppam mo taxaw wax loolu nee na doomam Binta mooy ku ci gën nee na Binta ci boppam Binta Camara moom walliw la DG si boppam moo ko wax ma dëgg ñëpp toog mu wax ko kon alhamdulilahi rabil alamin lu ñuy wax di am yaakaar bu baax ci di ko jaale wah groupe bi aussi waa Tarkinda di leen ko jaale ci commencé ko ci kaw ba ci suuf ku dugg ak ku duggul di leen ko jaale di leen ne comme ni ngeen waxee lekk luy am am na ba pare la coup est déjà partie et puis incha allahu rabbi information buñ ci mot xam enterrement bi aussi luñ ci xam rek dinañ dugg ci groupe bi leeral ko parce que déjà boo xoolee gaa yaa ngi woon ci enquête bi et corps bi moom libéré nañ ko sànq sànq luñ ko libéré waaw léegi incha allahu rabbi lépp lu ci am di euh, dinañ dugg ci groupe bi wax leen ko. di ñaan yàlla yàlla na jàmm sax ci groupe bi et njëriñu groupe bi encore du ma sonn di ko wax lii mooy njëriñu groupe bi di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm ci barke Seydina Mohamed ak ci barke weeru koor bi waaw loolu laa amoon di leen wax euh, di leen ne wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu.